en tant que nan la koy bone parce que ñoom li li seen jëkkër yi nam si ñoom gisuñu ko moo tax ñoo fekk ñu si biti. mais yéen tamit bu leen fàtte ni dafa am góor ñoo xam ne mais ñoom bu ñu fàtte ne loolu question doylu bàyyi leen di accuser góor yi bàyyi leen di accuser góor yi ma leen. yow yow xoolal xale jéem ñu fi bëre. foog ñu tàggatise wu ma leen foog ngeen jaarale seen dënnu ñu xale ci xale yi. mais yéen tamit ko fi yoon. boo génnee ci mbedd bi gis loo xamante dafa baax nga yëg ko ci sa yaram am nga droit dem ñaani. mais yéen tamit bu leen fàtte ni ba dara dul dara tamit ñii ñoo fi nekk te yow côté ay dañoo leen a toppatoo loolu ngay wax ñii sax booy xool moo dàq di ndax boobu la xale bi nekk jeune boobu lañ fekk mu nekk jeune ñoo ko ah, transformé ah ëpp naa xalaat. Ah, <laughs> <laughs> Euh, comme elle n'avait pas compris. pourquoi comprendre. lan motax comprendre mhm. chercher mhm. pour deuxième femme parce que nous bëgg. lu nooy lu yomb lu sedd yéen nag dama yaakaar ni loolu sax mooy gën a indi problème bi ndax da ngeen da leer na yéen gaara ngeen xale bi ñëw na di cëpp-cëppi loolu mënatu leen ko est que du loolu mooy bëggu seeni xol question de gaare du question de gaare déggu hmm. muy tàngee ñoom dañuy daw mooy li ma la fuite parce que tey boo xoolee ki yor tey tey à peu près doom tey ji mu war a xëy ndékki war a xool ñaata kilo ceeb lay sóor yaa ngi dégg tey jii bu fekkee ne amoo moyen boo xamante ne am nga ay ay ay ay chambre assez de chambre amoo ko mhm. tey bu ñuy tëddee à gauche ñuy tëdd à ñuy tëdd au milieu yéen ngeen tëddee nii yow xam nga dafay yow da nga ni sànq da nga ni sànq sànq da nga sànq ñu bàyyi ko mu terminé yow doo ah, jigéen mais danga bàyyi mu terminé loolu mënul nekk li nga bàyyi mu terminé monsieur Samb ah, ah, jox jox ko takkee aawo comme ça aawam dem ba mënatul moo waral mu war dem takk ñaareel tey da ngay gis góor goo xam ne day takk ñaareel mais à tout le temps mën na sàcc ay di dem ci aaw bi na xam na ne la muy yëg ci aaw du ko yëg ci ñaareel. am na solo ndax ngay takk ñaareel da ngay takk ñaareel aaw ba gën kaa mën gën kaa dëgër am na solo ñu yemal ni foofu ñu dalal ah. suñu beneen euh, ah. ñaareel bi muy madame Ndiaye dalal ak jàmm maa ngi lay nuyu di nuyu ñëw bokkal plateau di nuyu aussi internet yi ñuy seetaan euh, di rafet rafetlu invitation di la remercier aussi waa émission bi thème bu am solo la mm-hmm. thème boo xam ne mun naa ne Euh, actuelle parce que instant mélanger na je me dis que sax mhm. parce que ki rek est exemple di far. sujet. côté. taal seen dënd yi moo tax maa sa te dafa sib loolu est-ce que ñooy génn des di nga ñaari ñaari jëkkër ak jabar ñu ñu takk ñaareel boo takkee ñaareel indi ko si kër awo beeg ñaareel peut-être mën na njuboo de mais ku góor ki mooy géng di wut fu muy far. bu ko defee nag ku nekk di bu ko commencé xool sa borom jubóo bi ñàkk jubóo bi commencé guddi boo toogee kii de li la def li laa gën a lii góor da ngay da ngay yemale ay jabar boo amee jabar da nga leen na lu ma dégg am na lu ko ko expliqué leen pour bëgg këram këram këram lii rek jub rek ah. ku mu jox la tëram maa ngi dégg keroog euh, histoire boobu ñu koy raconté kooku bañ na këram tas ndax tey di ku fanaanoo dina la jox dërëm mun ne sa jabar ji kañ nga gën bëgg mu ne ka ma jox dërëm ma xam ñu ñëpp kenn du réeroo nag ku ci nekk jox na la dërëm moo tax góor da war a bàyyi néeg sa aaw muy ñaar muy ñett foo fanaan am ay dóor yoo fa sànni toujours ay misim sol sol mais ku ci nekk looloo tax bu ñu xëyee dagaloo ci kër gi man ma raconté la benn histoire am na koo xam ne tey jii këram jëkkër ji yorul xaalis mais aaw bi ñaareel bi bëgg na provoquer problème tax na sa guddi mu dem jaroon na ko dem ba ca dibitari ba wut fa ay papier yoo xam ne dañ koo lekk yàpp ba pare mu ñëw teg ci buntu këram buntu néegam bu aaw bi yeewoo gis loolu mu xam mu yaakaar ne jëkkër ji dafa jéng day dem di indil kee lu mu lekk te moom du ko jox lu mu lekk soxna pour lan la soxna Fatou Bintou yooyu yëpp dëgg la mais yéen tamit bu ñu delluwaatee tuuti rek parce que nee naa la sëy yi njëkk ñi ak léegi bokkul pourtant mag ñu njëkk ñi yooyu yëpp dañ ko doon dund lii du du lu bees de jeng gii nii ça a toujours été comme ça te teewul yéen loolu lépp da ngeen ko doon camoufler parce que da ngeen bëggoon seen borom kër tamit non bariwul bariwul mhm. bu pare bu njëkk borom kër yi noonu daan ji ci kër ak léegi du benn xale yu yi léegi bañ nañ ko ba da nga gis xale bu ndaw yor ñaari jabar di këris ko di génn ci dëkk bi def lu ko neex. loolu amul fenn waay tey jii kër non non tey jii ju njëkk. loolu amul fenn mag ñi dañuy dañuy fu seen kër. loolu du fa am da ngay mën a yem ci kër gi yéen ñëpp ngeen doon benn ku ci raj rek la bu sey da nga dem toog sa sëñ parce ci njëkk ak sa ben ma ñaan la benn kàddu ali tamit bëgg naa wax ak ñu ma ñaan kii kii ma ñaan ma ñaan la kàddu pour kii mhm. parce que yow sa genre yi mhm. du ñu uuf ñaareel mhm. yow doo yoroo yoroo jikko aaw di nga aaw da ngay jàng uuf di nga di nga uufee ñaareel noonu di nga uufee sa njaboot noonu nga war a uufee ñaareel bu ko defee rek kër gi neex bu ko defee kenn du la sikkal mais yow mënoo maa kii mun naa ne exemple la kii mun naa ne exemple la dëgg na même ma wax baal ma baal ma doguma la yàlla bu la dee doon ma ñaan la ma ñaan la bu ah, kii exemple la kii kii exemple la kii exemple la kii tey bu ñu ko jëkkër bu baaxee ci moom jëkkëram bu baaxee si moom mais leen ma wax leen ma ñaan leen ma ñaan leen kii jëkkëram bu baaxee si moom tey ëllëg xam naa ne wóor naa ne kii mun na wutal jëkkëram ñaareel comprendre nga kii bu ñëwee bu jaaree xanaa ñaareel ba ñëw yàqu mais bu yàqu bu ñëwee dina ko uuf ñu nekk ñu nekk ay maga rakk mu def ko mu def ko kii def ko rakk moom mu def ko mag mais ni ngay waxee ni day mel ni yow da ngay siis te ji nga sëy ji nga ji nga ji nga wujju boo ko wërsëg la rek xoolal man tam maa la ñaan xoolal dégg ma man fii su ma de dama la jox exemple dama ne ma dama nekk ak sama borom kër démb au début dara woon dara ñuy ñuy góorgóorlu di góorgóorlu di góorgóorlu ba mu xaw a tane. ba dem moom ba correct normal ba neex gis. mu dem xool femme boo xamante ne moom sëy si moom ku jël ay dem dem toog foofu noonu abandonné ma man loolu laa la wax kon yow ki nga fekk si kon nangoo tegu ci kawam kooku mënut a mënuñu wax ne muñ man maa dina ñëwaat lu métti métti xam nga yow leer na ëllëg dina ñëwaat. waaw moo tax nag nga war a muñ bu nga dala sa bopp parce que yaa ngi commencé mer te fi ni réaction boo def rek sa doom lay wàcc te yow da sëy xam nga yow wax ko man ba tey yow laa àndal man ba tey yow laa àndal parce que yow tey da sëy ba mu baax def lu baax dangaa ñaan yàlla sa sëy bi nga sëy boobu noonu tey mu wàcc say njaboot léegi affaire bu ndaw boobu nag yaa ngi bëgg a yàqal sa bopp non parce que dama lay expliquer dama yëgale histoire bi dañoo dem ba au benn moment moom bi ñu demee ba au bi ñu demee benn moment mooy li ma lay wax ne ne ñoom les deuxième femmes comprendre manque de compréhension moo waral ne ñu demee ba femme bi comprendre ne ku góor dafa ñëw pour madame Diop euh, am na solo daa ko ko këram finalement moom moo ñëw indi saagam dama sama aaw man mi sëji woon maa ñëwaat. waaw mooy li ma la wax rek bu nawet madame Diop wax ji am na solo ñu jox kàddu gi euh, kii mu tëj parce que dafa am suñu beneen invité bu war a ñëw monsieur Samb comme que ñoom kër yi ñoo koy jaxal lan mooy sa mot de. maa ngi maa ngi lay jaajëfal si invitation bi ma invité mais dama wax ne aaw yi moo si sa ngi commencé. yow bu yeboo sa kër nga yow da ngaa jéng yow jéng nga yow. yow sa kër xam naa may ma ñëw rek may ma ñëw ngir yàlla ne ko may ma ñëw. Ah, déedéet yow sa kër may ma ñëw man la ñoom nag ay esprit de partage ñii seen rakk lan danoo bokk wërsëg rek dëgg la sa am na kër yoo xam ne ñaareel yu soof yu réew lan am man dama koy dëggam naa ko yu soof yu mais nan am esprit de partage muñ sa xam ne danoo bokk wërsëg ah. kii nag passé passé passé présent lan wax ak futur loolu ñuy dund loo teg jéng de am am nga jaajëf monsieur Soms ñu dalal suñu beneen invité bi toujours ñu ngi seen émission li ci biir kër yi di waxtaanee ci ujjee yi ci kër yi mhm. dalal ak jàmm monsieur Souleymane gisee thème bi waaw jërëjëf maa ngi lay nuyu ñu bokkal plateau yëpp mhm. mais sànq ba léegi maa ngi leen di déglu. Mhm. mu mel ni tey euh, bañ dañ tuddee benn affaire boo xam ne dañ ko wax rek gars yi dënn a tàng. Mhm. olof dafa am lu muy wax njéefoo. maanaam maanaam loo xam dafa nëbbatu si biir si biir nit te surtout ñun góor na. léegi nag ñaareel ñooy ñëw ñooy nekk suñu loxo njuur ñoo koy ñëw génne ñoom ñoo ñuy jox luñ soxla ñaareel ñoom ñuy jox luñ soxla <laughs> mais gars yi boo leen waxee lekk ceeb chaque jour sax da lay sàppi ok kuy lekk ceeb chaque jour bu yàggee mu sàppi problème yi ci kër yëpp yéen góor ñi la non góor ñi andiw ñu benn problème ah, affaire bi lan la nit ki mënoo ma la wax léegi mënoo dëkkee di lekk ceeb mhm. da ngay jékki-jékki changé ah. togg a doma daa wala nga togg li nga wax ni problème la wax la benn si gën a garaaw waaw awee ah, tey bu ñu nee balance ñu def ko seytaane ñaareel wala ñu fe mu ne pangaas nga ree nekk yow ni nga yàqoo ah, ah. <laughs> No, yow tey jii li nga wax day tas li nga No, nii day tas kër. non li nga ne lii nelaw ñaareel ñoo koy yee. yow tey tubaab loolu day tas kër loolu boo demee boo ko sa biir kër di teg parce que yàlla dafa wax ci diine terewul képp bépp jullit mu takk ñeenti jabar terewul ko mais day fekk nga mun ko. xam nga yow li nga wax tey rey nga sa bopp parce que nee nga. kenn ko mën déglu ma déglu ma da nga léegi yow da nga wax carrément nga ne bala ngaa takk yow parce que da nga da nga doyal ngay dem ñami leneen xam nga la mais tegul di nga war sa jabar yow war sa jabar ba xam tekkiwul dara nga doog a dem a jabar tasaare ñoo indi problème moom hmm. bëggul xamul amul au fond hmm. moom day xemmem li mu wax tamit neexul dindi de bàyyi moom day xemmem dafa bëgg jigéen du loolu bëgg jigéen feebaru dañuy bëgg jigéen amul en tant tegtal xamoo mbëggeel lu mu neex. ma ne ñaareel la ñoo suñu loxo ñuur ñoo ñu soxla. waaw parce que li kii dafa wax xamoo amul xamoo sa luy bëgg yow kon ba nga takkee awa sa lan la génne. Ah, xaw ko. ah lan la génne ah yow daa da ah, nga xamoo ko daa da nga xamoo ko yow da nga xamoo ko. Ah, bu fekkee da nga takk ñaar maa ngi jégalu mais ñu dégluwante ah lu mu lu mu wax tamit am na solo parce que la plupart jigéen ñi dañuy bàyyandiku bu ñu amee ay benn doom ñaar ñett rek bàyyandiku mais la plupart constat ah, bu ñu may seetaan ñoo tax tamit mm-hmm. est-ce que jotul aussi aawo ah yi xool ñëpp aawo yi am na ñoo xam ne fañ nekkoon ba tey ñu ngi ngi def ba mu baax yenn saa yi sax nga doyee di génne da ngay takk ñaareel soo ñëwee sa ñaareel bi buñ newee ci kër gi ñaareel ba lañuy jaawale aawo Mm. ndax màgget muy màgget ak futi ga muy futi awa ba mooy nekk xale di def ba mu baax ñaareel ba lañ koy tege ji te boo seet loolu mooy waral takk yi bari yi naan da ngay takk di takk takk loolu moo seetloo léegi te boo seetloo léegi ñi xam ne ñoo gën a sonn ci seen jëkkër tey mm-hmm. ñooñu la ñuy wutal wujj mm-hmm.

waaw man dama je me dis juste que góor ñi bu ñuy takkati jabar nañuy xool xoolaat. Hmm. parce que nit nekkul yow parce que da nga am envie takk jabar rek wala da ngaa xiif jigéen comme sama genre yi. ah comme sa genre noonu. jabar ba kay takk diine yàlla moo wax loolu. te moom mu ngi nii boo ko xool sax niru na ibaadu. yàlla mo ne jabar ñaare sa ñaare bo demé ba kay tak fogg ñu laaj sa awa sax ne mom ba xam mom paré na wala ba xam manké wu dara nga dogo tak takk ñaar mais ñom lo sa dañ kay faay te buñ jógee na diiné mo leen waxtu bi dafa bari wul sa fois ñu dajale xol yi ñu xam mhm. wuju boo ko la rek xam nga mhm. ki na jappé mak keneen ki jappé rak bu ko défé kër gi mëna dem kanam jëkë ji tamit bañ di euh, di jéng am solo soxna Fat Bintou solution pour jamm mëna am hmm, solution bu mëna génné moy na góor ñi xoolaat bu baax li ñuy def. <laughs> ndax tey jii imaginer nga am si aaw bu baax aaw bu baax loolu dafa dafa dafa neex. sa kër nekk si jàmm lu bëgg miin lu ko def di la toppatoo. Mhm. mais c'est que léegi benn côté dañoo xaw a doyati. Mhm. may wax ñu bàyyi xel ndax tey jii loolu bu ñu ko bàyyiwul day war chaque jour ngay takk di takk di takk ndax mën nga takk ah, sa aaw baax nga nga xeeb sa aaw da wut ñaareel ñaareel ba ñëw ci kër ga la ngay wër ca ñaareel ba xaajoo bu koy gis la te aaw ba moom ngay wëraat nga waral nga takkaat mooy waral takk-takk yi bari ma leen di wax ñu xoolaat bu baax li ñuy def di am contentement ci dalal bi nga. monsieur Souleymane nañu xoolaat bu baax doxalin yi. Mm-hmm. looy wax ci loolu. solution waaw man lu may jéexale mooy ñoom ñii toog foog ñu xam ne du caagi ne nit ki da nga war a def dara sa borom kër moo tax nga toll wujj déedéet ñun ñooy toog xool ba mu ñeex ne ñun jot nañu am. ñu am ñaari jabar wala ñetti jabar ñu am takk ko man ñaata ñaata ñaata weer a ngi nii gën naa lekk ginaar bu dëgër ginaar bu gëjëf lañ may taggal chaque jour loolu tax ma non yow da ngay yàq der yow da ngay yàq der yow solution yàq der waaw man solution yi pour jàmm am solution yi li ci message bi may lancé dama koy lancé pour jigéen ñi ñu conscientiser seen bopp xam ne ñi dafa am borom kër am boyal kër dafa am góor ñoo xam ne dañuy boyal seen kër ba mu tàng ñu jéem a ci genre góor yooyu ñu def ñu def analyse bu baax ci certains góor ñi nga xam te ne comme genre yi la bëgguñu benn complicité seen ñaar jàpp parce que en souvent parce que le plus souvent dañuy wax naan aawbee ñaar bu njuboo ñoom dañ ils sont en danger ils sont en danger parce que dañuy bañ complicité complicité boobu noonu dox seen diggante loolu moo tax ñuy def nag point de divergence boobu entre ñun mm-hmm. ñun nag ñoo war a xoolaat ñu jigéen ñi xool bu baax góor ñi nit ñuy manipuler ñun ñu éviter ko man loolu laa am lu may wax sama mbokk jigéen am na solo ñu xool bu baax ni ñu leen di manipuler comme jàmm mënul ñàkk ci kër di leen wax ne lii moo nekkoon seen numéro li ci biir kër yi di am mbégte ak contentement saa su ne di ci ànd ak yéen di leen wax jaay jaajëf si beneen numéro incha allah merci